vice de la lutte sans frappe de la lutte olympique li ni mel daal bokk na ci li xaatima gumba teg moom président Aline Sarr octobre la mandaam di jeex bu ko defee ministre bi xool kan lay teg ca bopp CNG ba loolee moo waral journal bi xëy samp laajam ba xam ndax lamb ji dina dellu ci acteuru lamb yi ñooñee ñuy tuddee acteur de la lutte ku ci nekk ci ñoom jox nañ la poste ba nga toog poste yi nag lu nu njort la amagul Mouhamed Ndaw Tyson ñu jàpp

ko mandaam jeex na ñun li ñu bëgg mooy président bu accessi te président boobee bu ñëwee dañoo bëgg mu régulariser le titre de roi des arènes beneen président bi fii ñëw na fexe ba lutte olympique bi di dox jëm ca kanam ñun loolu képp leen koy sant du leneen leneen le journal ba xëy fësal mooy guy gi ak arme yi nga xam ne war naa mën a tax mu daan rëg rek le journal ba xam le mooy guy gi ku ko xam-xam goog arsenal mystique ngémb gu baax la yor ay kër yu ak moom pour mën koo daan bu ko indilee bagaar bu mel ni tuleeg màlle mën naa am ci combat bi dara ñett yooyu la journal ba xëy lim ne guy gi bu yeboo miisi ca safal ay bitéelam la finalisé ku ci nekk jot nga sa xaalis ñi bëggoon yàqal Pape Thialis bëggoon yàq bi le combat bu ñë boo xooli leneen olof njaay moo fi léebu woon ne fa yàllay dogale yàqkat àggu fa yile combat yi Leewtoo production fa ko yàlla dogale amul benn yàqukat bu faag bu dee diggante ba naroon a yàqu diggante Tapha Gueye ak Gris Bordeaux président supporter yu faas yi génn na ba wax ci xalaatam la mu wax mooy Gris Bordeaux moo wax ci làmmiñam ne du ma sa def lenn te àndu ci ak Tapha Gueye lu mu mën di def suba ngoon na ci ànd ak magam Tapha benn problème te du ma sa am benn bu nu jàllee ci bilan écrit Kër Massar mbooloo leen di fekk ñu def 12 victoire 15 défaite seen victoire ya buubu joom moo daan John Sina ci tëppool daan Lompoor daan da ak Avenir ak Zoro ñoom ñëpp am defet bu dee Baba Gueye seen directeur technique ba la moo mooy nombre de combat bi moom lu am solo la liñ ciy naqarlu rek mooy victoire yi moo waroon a ëpp defet yi waaye 27 ak fi saison bi toll loolu lu baax la jërëjëf mbokki yi li moo nekkoon li gën a fës ci yéenekaay bi ñu leen jox dig daje ba ëllëg incha